xelam ne ci yow ba mu jaral ko liggéey ay at bëgg la ko jox ndax nga mën a fay bor say waajur xale ba mu nekkul ci yow loola soob def mhm. ku dul këlkin nag sa wañi nax la dëgg la laaj dama la ni dafa ni dëpp day wees mhm. boo gisee ñu ni dëpp day wees mooy mhm. kii daw ci dugg biir àll bi da ko naa déet jeex na nag sànku nga xel yi diib fit ba arrière. xel ma teey dëpp lay bëgg a def. waaye dootu arrière dootu avancé. te gis nga déggan. génn góor xelam téyeetul. du tax ah du tax. lu tax. li la waroon a jafe bu la yombee boo tëddee ne la wala boo jógee am ko. dama lay démb laa la wax ni la. classe gi bu ñu mësaa ni tël. ah am nañu borom. borom juddu yu rafet yi. ñam am ngor mm. ñi nangoo liggéey mm. ñi sàmm seen bopp mm. ñi am kilifa ñoo naa doomi diw app naa ko ba li lépp jeex ci yoon ak ndigal ak waajur boobu loolaa amoon waaye génn góor gu fati génti mbaa maa ngi liggéey di ko dajale ngir damaa bëgg diw amatul xale jigéen seen xel teeyul góor yi seen xel teey na te nee naa la des na tuuti xale bu jigéen bu ci fooyee sa bopp. yaay sa muurum ndey. jigéen bu demee ba doon muurum ndeyam. légat ga dëpp na dootu fay bor dootuñu ko làngal. macha allah macha allah xam nga Bessél. am na benn paquet boo xamante ne nekk en tant que jeune. soo fi toogee bëggoon naa la ko jox. parce que jeunes yu bëri ñoom dañu defe ni ne euh, da nga ci gi jeunes yoo xamante ne duñu timide. Euh, donc euh, wala boog euh, de manière générale dañuy naan daal dañu timide lañ ko laa ko mën a waxee olof yi di wax kii dafa complexe trop mm-hmm. alors pour ñoom aussi bien góor bi ak jigéen bi waaye rawatina sax ci jigéen bi pour ñoom pour décomplexer <coughs> pour que ñu mën a waxtaan wala boog pour que ñu mën a daal nëbb nëbb seen complexe ak mm-hmm. nëbb seen timidité mm-hmm. li ñuy njëkk def muy tux li ñuy njëkk def mooy naan bañ na ko ba nga xamante ne am na dañ ci gis kenn koo xamante ne ne su du wax du wax wala boog day am kersa ku muy waxal mu ngi sëgg xam nga baax li ma la wax mën na fi toog suba ba ngoon pour que nga tijjiloo ko gémmiñ bi problème la waaye xale bi il suffit que mu bëgg a wax wala mu bëgg a defee dafay naan ne lii su ma ko defee dafa am ñenn ñoo xam ne dañuy naan su su léeg-léeg nga gis sax jëkkër ñoo xam ne dañuy naan kii su fekkente ne tuxul wala naanul du xippi xool nit le fait que ñoom ñu defee ni ne sàngara boobu wala tu doog boobu moo leen di décomplexe pour que ñu mën a dugg ci mouvance bi dugg ci nit ñi yow loolu naka nga ko gisee euh, taa déggéen man ni ma ko gisee rek mooy euh, dama naan ñooñu est-ce que réellement euh, est-ce que réellement nekk nañ ak seen xel parce que man bu ma déggee nit naan man su ma toxulee su ma naanulee munu ma nekk wala bu ma toxulee bu ma naanulee munu ma def sama liggéey man je me dis yow buggoo sa liggéey wala li ngay def bugguloo ko euh, taa dégg ba pare léegi xale yi jigéen ñi li leen di gën a bari euh, ñuy tux di naan da ngay am sa copain mu nekk ak yow amaana ngeen commencé di dund benn dund ba nga am yaakaar que day nekk sa jëkkër mu jékki-jékki daal di lay trahir ñu commencé di jooy am commencé di am souci commencé di am problème. ñu ne lu leen di kiiloo lu leen di calmeloo pour mun a fàtte seen problème dañuy dem commencer noonu la tux bi di ñëwee ak naan bi. ndax waa ji daf leen trahir. waa ndax waa ji dalee na a trahir. kon problème mu amoureux daal mooy dugal xale yu jigéen ñi ñu bëri ñu waa ñu ci gën a bari. waaw moo leen di dugal ci wàllum tux ak wàllum naan. Mm-hmm. Mm. parce que dañuy dem ba dootuñu mën a maîtriser. Euh, seen tristesse waa seen tristesse ak seen métit bi nga xamante ne. Mm. ñu ngi koy am donc douleur boobu cigarette ak sangara. ñoom kon daal su ma la déggee ci jeunes yi. Mm-hmm. déception amoureuse moo leen di ci dugal. moo leen ciy dugal ci ñu bëri. li ci gën a bari tey mm. boo ko xooloon. ci jigéen ñi ci jigéen ñi nga waxtaan ci ak ku baree bare. da da ngay da lay wax ne carrément. loolu moom mooy sama euh, problème looloo tax ma commencé woon di tux. ma commencé di foowantu et tout di tux xam nga nit li ngay foowantu bu yàggee dafay daal di doon da l'habitude et l'habitude euh, baaxul lépp loo xam ne. Euh, la dégg nga <laughs> lépp loo xam ne rek. Euh, nee na góor yi leen di trahir. excès hmm? moo baaxul taa hmm. dégg ngeen. dañu am copain di génn ak moom. waaw kooku jékki-jékki bàyyi leen takk keneen. Hmm. war leen wala war léegi nag ñoom tamit ñoom ñu seen naqar boobu ñu ci am daal pour ñu bugg ko fàtte ñu dugg ci yàmbaa beeg. naan bi may def rajo. dama ci amoon benn te boobu dégg waaw na dama ci amoon benn cas bi may def rajo donc euh, dam bi ñëw ci man euh, copain bi tout le temps da doon am ay yeneen copine mm. mais bu gisoon demoon boîte fekk fa copain bi ak yeneen copine là automatiquement dafay dafay éclaté wu day day daal di meex ba dootul xamati lan lay def donc day naan du xam ci lu muy nekk wala bu déggee ne sama copain mu ngi doxaan diw rek il faut que mu naan mm. pour mu mun a fàtte problème boobu mun a fàtte souci ma ne ko léegi yow lan moo tax ngay def loolu mu ne ma wii waa ji fi ma jaar ak moom li ma ko defaral lii ak lii ma ne ko mais waaji nit foo mun ta jaar ak moom ci àdduna est-ce que tux wala naan moom mooy faj loolu ma ne ko mais dem na demal nga bàyyi ko ma ne ko ñëpp am na ñeneen ñu fi nekk mais du question que da ngay tux rek da ngay naan ma ne ko tey yaa ngi ni mënatoo ko bàyyi parce que dafa dem ba mënatu la bàyyi tux mënatu la bàyyi naan dafa bokk ci dereetam donc essayer na def tout pour mu bàyyi tux mënatu ko bàyyi bésal taxawal foofu balaa may crise xam nga lu tax àllaaji <laughs> dama lay jox xam nga man xale yi fu ñu jaar ak moom laa mënta supporter yow xanaa balaa ngay jaar ni ak nit fenn ngeen sëy waaye ci ngoro loo xamante ne ay at nga jaar fii nit fu ne fu mu lay takkee jëlëb allaaj parce que man. gis nga man besen man léegi ma crise non saa dégg ñoo suñu suñu génération bi dafa metti xaaral ma jox alaaji joxaat la parce que da nga génne ay ay xam nga diggan hmm. doyle daa bokkul ji dafa doyle mhm. lu na dëgg takk nii takkul nii xam nga dama lax toujours ni la hmm. lu góor munta muñ muy kumpaam hmm. mu dem ba pënd bi wuri mm. munu ko am mm. jàkk jaa fay sës lu jàkk dugal dagan na mm. ndax amatu fa ndax ci yoon nga jaar ndax góor gi dafa ne ci kumpa waaw waaw waaw waaye takk nii takkul nii day doyal trahir ak doyal bokkul na xale yi dégg bu baax li déggoo sama wax de ki lay trahir dëladul xamal dara trahiru la da ñu nitu fulla di nitu këlute mu nitu caaxaan diggante ba yem ki doyal fu ko neex yem kumpa ga deñ na jëlal doo ko muy dem banque jël ki ci <laughs> sa kii euh, laasana suñ jëlee rek nañu arrêté téléphone yi tuuti parce que euh, occasion la pour que ñu am fii animatrice pour wax ak moom allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi leen di ziar ñu ngi lay ziyaar bu wér. di leen déggee di kontaan ci yéen. bég nañu lool ci yow soxna si. thème bi moom franchement c'est intéressant. ndeysaan jërëjëf. mais man damaa bëggoon a wax ci xale yu jigéen ñi. waa bisimilah bisimilah. Euh, li ngeen di wax yëpp c'est vrai. Mm-hmm. mais nañu fàtte nañu bañ a fàtte suñu jógee démb. Mm-hmm. nañu bañ a fàtte parce que lu ci bëri. Mm-hmm. moi je crois que la télé aussi mi ngi ci. parce que film yi ñuy seetaan di gis kiw amoureuse et tout ça wala di xale jigéen di dorogé wu fii tout ça. Mhm. ma je crois que loolu tamit mi ngi ci. Mhm. mais ñu gis ne film yi noonu ci film yi nu mel rek c' la réalité non c' est faux. dëgg la. c' est pas la réalité. dëgg rek comme genre théâtre ñu ngi seetaan pour yeete. Mhm. mais ñoom bu ñu seetaan film bi rek ñu ne ni nii nii la mel rek par exemple Europe tamit c' est comme ça ñun tamit nañ def noonu. ça marche Europe Europe la. Sénégal Sénégal la. dëgg la. bu ñu fàtte suñu cosaan. dëgg la maa ngi ñaan sama jigéen ñi nañ tëdd buñ eh, eh, xalaat bu baax. Mm-hmm. xalaat tamit pour seen doom yi ëllëg. Mm-hmm. parce que c'est très très important. ndeysaan jërëjëf. jërëjëf jërëjëf soxna si ñu ngi lay nuyu di la remercier bu baax a baax encore une fois merci. dégg nga dégg nga jox